yéen journaliste yi yaakaar naa première question bi moom question bu ma neex la yëfi woyu boobu du ngeen ma si wooyee dama ci kontaan pour uyu ko l'affaire Bat Bat na réglé pour commencer parce que Bat président warut wax ak président dara ñun la war a waxal dañoo juddoo Dakar yaroo Dakar gën ko xam Dakar Bat fu laalee président yaakaar naa sama coordinateur wax na ko léegi ñun lay amal affaire loi de talion commencé na œil pour œil dent pour dent batt na bàyyi président Macky sàll du nawleem président Macky sàll talu ko lu gérer Sénégal la defu ko sa nawle l'affaire batt batt du amee ku mu waxal na dem seeti ay mandataire am am ñoom ñoo nekk ci seen biir di lekkante ci seen biir di luube ci seen biir ba jaxase yëf bi ndaxte liste bu génn wax dëgg yàlla APR xamuñ ci dara président Macky Sall xamu si dara cinquième position ñu def ko góor sixième position ñu def ko góor septième position ñu def ko góor DGE boobu ñuy wax DGE boobu moom moo ko fal DGE boobu ko fal DGE boobu moom moo rejeté waat dossier bi donc l'affaire Bat batt conneries yi tàmm nañ ko ci moom dañ ko tàmm ci moom yaa ngi naan lu tax wowuñ ko ba léegi lu tax wowuñ ko moom li mu nekk maire moo ko sauvé bu nekkuloon maire foofu lañ koy jëlee yóbbu ko waaye nag ñuy rendre encore hommage waaw je non non personne n'est au-dessus de la loi je veux juste dire que ñun l'affaire de batte dañ ko commencé miis man je me demande sax ndax jarut yóbbu dalal xel te nag man en tant que femme et en tant que la euh, coordinatrice nationale des femmes de cet belle structure qui est la COGECAR ñoom ni ñu ko defee sax man dama ko njëkk a ñaawlu lu tax ma ñaawlu ko parce que respecté ñu ñun jigéen ñi dañoo suufeel dañoo néewal doole waaye gàcce ngaalaama suñu président de la république moom xam na suñu gëdd mu ngi ñuy teg fi ñu war a teg donc mu ñuy teg fi mu ñu war a teg donc macha allah li si des nag dañ koy bàyyee justice ñoom ñu xam ni ñu koy doxalee.